maa ngi nuyoo nuyoo yi gën a sell ci nuyoo yi di ci jiital sama njiit yi toog di jël nuyoo bi di ko teg seen loxo ñu jottalil ma ko soo son excellence président Macky Sall ñu dottalil ma ko soxnaam su baax soosu nga xamante ni mooy militante première heure Adja Marème Faye Sall waaye nag liw bi liw bi ngelaw li la ngeen baal ma ma commencé si Pape Mayel Thiam bu nekkoon dañuy toppoo tokkol mën naa commencé si madame la présidente te de benn Benno Bokk Yaakaar national waaye dangeen may may ma commencé si sunu administrateur Pape Mayel Thiam yaa baax yaa fàttaliku démba yaa xool démba ba képp ka nga xamante ni nekkoon na ci baas bi ñu bëgg koo fàtte nga xëccaat ko boole ko ci di nuyu alaaji Malick Sarr ma bëgg ngeen ma Malick bu baax ndax moom dafa fekke démb moo tax bi ñu nee ba leen jóg ba Mayel Thiam wax ko mu ne duma bàyyi les femmes pionnières ñu wéet mukk duma bàyyi les membres fondatrices ñu wéet mukk kon boo Alaaji Malick Sarr jëf di sant di gërëm sunu tête de di ko nuyu di ko jox yéegu waayam Mimi Touré ajaratu Mimi Touré madame la présidente ñu ngi lay ñaan bul tontooti ndax ku am kuddu doo lakk tey madame la présidente am na ña nga xamante ni nii dañ naan sénégalais lañu waaye duñu Sénégal ndax Sénégal ñëwu leen ñiy woo si xale yi nañu taal ñiy woo si xale yi nañu yàq ak ñi nga xam dañuy woo si xale yi caxat caxate leen li fi son excellence président Macky Sall ñooñu ñooñu mimi madame la président jalu ñoo tontu. dañu lay tàddeel doxal sa doy nga ñu doyloo nañu la te yaa jiite sunu liste nationale xamal ni sa ginnaaw bandang buñ delloo ci base bi lépp lu ñu wax incha allah rabbi dinañ ko def ministre de la femme Ndeye Saly Diop yónni na fi forte délégation madame Ba jiite ko lii bi mu këtt ni jonn rek xam nañu mooy sunu kilifa dama yëkkati sama téléphone woo ko mu rafetlu ko tey bu nekkoon sago moom mooy toog fii waaye yónni na forte délégation muy sama camarade de parti yi ñëw toog ma leen di sant di leen gërëm waaye laaj leen ma fu may daanalee maa ngi daanalee ci yaayu parti bi maa ngi daanalee si ajartu Ndeye Marème Badiane mi nga xamante ni nii les femmes pionnières les membres fondatrices de l'APR heure bu ñu seen bëggee seen bët leer wala heure bu ñu bëggee lu leen dëfal wala lu leen delloosi foog nañ madame Badiane rek mooy ki nga xamante ni nii moo leen si doy ma koy ñu koy nuyu. di ko sant di ko gërëm wax nañ dëgg lii biñ nekkati ni jonn bi mu ñu jëlee délégation ñu dem këram jour boobu sax mënu ko waaye dafa yendoog ñun suba ba ngoon si ay tranga yi nga xamante ni nii mujj na ayib yéen les femmes dëgg la wal du dëgg dëgg la wal du ñu tranga yi nga xamante ni nii wax dëgg yàlla la gën koo rëy ndax kuy joxe ba joxe bi màkka si ñi nga xamante ni nii dañoo ñëwoon rek bu saafanteeg yow nga yëkkati bee màkka jox leen tey waxatuñu dara nga yëkkati enveloppe bu 5 1 million enveloppe ko suñu loxo kon kooku may nañu fit dooleel nañu wan nañu ñu la ñoom la woon démb wan nañu ñu waaye ñoo ñu wan yoon waaye tamit am nañu yéene si les membres fondatrices ndax nag nañu xam ni président Macky Sall ma doonoon doonatul léegi léegi mooy président tous les sénégalais tey it nag olof comme ni ko olof di waxee lu sotti am boroom waaye ñun les APR ñun APR les membres fondatrices dañuy yaatal ndax yaatal lañu ñu xamee dañuy yaatal ndax yaatal lañu ñu xamee waaye nag dañ ni bu gan yi mënee booloo doon benn bloc waxantu maag ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon démb ak barki démb ñu ni dinañ booloo doon benn bloc ndaxte bu méttee dañuy toog bu neexee dañuy toog bu naqaree dañuy toog yàlla na continuer di neex président Macky Sall fi mu bëgg a yemale réew mi yàlla na ko fa yàlla may kattan pour mu jëmale ko fa fi may daanelee waat nag ngeen may ma tuuti rek. d'accord madame la présidente Awa ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. di la wax egsi la jàmm ci les femmes pionnières ma leen di wax ni les femmes membres fondatrices les pionnières de l'APR maa ngi leen di ñaan ngeen jóg tàcc seen bopp ngeen jóg tàcc seen bopp loolu laa leen di ñaan ngeen jóg taxaw tàcc seen bopp ku si nekk maa ngi ko koy ñaan ngeen jóg ngeen jóg tàcc seen bopp ndax lii yéen a ko liggéey lii nii seen liggéey la jóg leen ngeen taxaw ngeen tàcc seen bopp yéen ko liggéey asta waalo kese mënul lii asta waalo dong mënul lii équipe la te équipe mooy gagné équipe mooy liggéey rawatina nag bi ñu amee suñu càmmañ bu baax bi nga xamante ne heure bu ñu gëstoo gis ko def na lu mës ta def Mayel Thiam démb ñoo ak ñoom moom bërki démb ñoo ñoo bokk Mayel Thiam def na lu mu mës def si àddinaam administrateur mais ñu ñu wax ko dafa tëj bureau am ak ñun dugg si terrain bi dafa tëj bureau am ànd ak ñun suba ngoon guddeeg ba jëkk ba dugg si terrain bi ndax xam na ni moo njaboote ñëpp maye jaam administrateur xam na ni moo boot ñëpp xam na ni moo boot ndaw ñi xam na ni moo boot jigéen ñi xam na ni moo boot xale yi xan na ni ñoom moo boot saasin xam na ni ñépp si moom la ñuy jëm si bu ñu jaaxle kon bàmmaye jaam sa dënn bii nga jël yaatal ko uus si ñépp rogganti si ñépp da ngay kilifa yàlla bu coono réer te président Macky Sall ñu ngi koy ñaan na yëg ni nga téye njabootam gi Alaaji Maalik Sall téye nga njabootu président Macky Sall gi Mayel Thiam téye nga njabootu président Macky sal gi kon ñu ngi leen di ñaanal yéen a xam bi ngeen bëgg ci pacte bi ñu nag ay ndaw lañu mënuñu xamuñu dañuy jéem rek waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax lii c'est la première fois te ñu ngi ñaan chaque année ñu def ko ci salle bi wala ñuy ñaan heure bu ñu namante koo rek dajee ci salle bi animé parti bi animé parti bi ndax parti bi jëm sa kanam wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.